إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إيان بك جلد ني بيب دوم آدم بخلو ورني لاج بابام فمنا طلو ممن ku ma indi ci àdduna bi lan lay def ci àdduna bi ma man fan laa jëm loolee les plus grands philosophes du monde ku ne laaj na ko boppam doonte ne seeni tontu wuuti nañ ca amma ñi nga xam ne dañoo gëm diine mu yahuut ak nasaraan di jullit ak képp ku masaam téere ko asamaan doo sikk sàkk ci ni yàlla mooy aji kile bind moo la moom dalaa indi ci kaw suuf ngiree nga jaamu ko jaamu googee bis dana ñëw mu dekkal la nga war a rendre compte lépp loo doon def ci kaw suuf bu dee lu baax la àjjana moo lay xaar bu dee lu bon la sawara moo lay xaar mbokk lii kenn ci ñun waru koo fàtte su ko defee doomu aadama bi xam ne ñun dey ñi ngi nii di dund dund goo xam ne taxawuñu tooguñu ñi ngi dem amul benn bis lu dul mi ngi lay jegeel daje bi nga war a daje ak sa boroom amul benn noyyi lu dul mi ngi lay jegeel daje bi nga war a daje ak sa boroom yaa ayuha al insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadxan fa mulaaqihi képp koo xam ne nii yaa ngi dund yaa ngi dox jëm ci sa boroom dox boo xam ne danga dajeeg moom bés bu nekk yàlla wàcc ay junni bés bu ne yàlla wàcc ay junni ba baa ngay bokk ci junni ba yàlla di wàcce ay yéen bokk julit looloo tax ba mboolem téere yi yàlla ma sa yónni ña ca am xel ca ñoom daanañu bàyyi loo xel ña ñu nekkal àdduna jii ñu nekk mu bañ leen a wor yàlla netti lu ñuy firawna ak nguur ga ko yàlla mayoon mu mbëru ba woote na man may yàlla yàlla génn ca paleem ba benn góor gu gëm yàlla mu ne ay yenn saaw xeet xam leen ne àdduna ji ñuy dund mataa la innama hadihi alxayaatu dunia mataa mataa mooy li ngay xéewloo benn waay invité la rek toggal la an ngaan ko mu jeex mataa la dañ koy xéewloo mu jeex waaye àllaaxira mooy kërug saxukaay ga képp ko fa yóbbu lu baax mi ngi noonu képp koo xam yóbbu na fa lu bon lu bon moo koy xaar muy sawara koo xam ne gëm na yóbbu fa lu baax da doon góor nga wala jigéen daañ lu dugal ci kërug saxuwaay ga kër googee nga xam ne daañ dafa wërsëgal ba faw ci lu àndul ak lenn luñ lay regleel loolee mbokk mboolem téere yu jóge kaw asamaan lii lañ jàngale woon waaye mbokk julit nañu xam ne dañuy nekk ci jamono boo xam ne boo farluwul da nga fàtte loolu ay yéen jeunesse sénégalaise la nga xam ne nii moom la ñuy dund suñ jamono ji tempanise nañu ci ay élection yoo xam ne nii coow guddi coow bëccëg ñii jaay nañ ca seen ngor ñii wax ca lu kenn xamul tey ñi ngi ci li ñuy tuddee coupe d'Afrique lii xew barki démb ñu ne Sénégal qualifié nañu Sénégal gépp riirandoo ndaw ñépp jógandoo ba génne le président de la république ca paleem loolee mbokk ndaw ñi xamul dañuy jàpp ne lii de objectif la lii jubluwaay la laa wallahi mbokk jullit loolu am polo naxaate la suñu borom yàlla mu ne xam leen ne dundug àddunaa ngi nii innama alxayaatu dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fi l amwaali wal awlaad dundug àdduna moo fees ak foofu ak luy itteel nit ñi puukurante ëppalante ci alal ak doom mi ngi noonu waaye suñu borom yàlla nee na daa mel ne taw boo xam ne dafa taw tool yépp naat balaa yàgg yi lépp lax lépp nekk mboob ngelaw ñëw tasaare ko mu dem looloo tax yow ndawal julit bàyyil xel jubluwaay bi du sport wala alal waaye jubluwaay bi mooy naka ngay def ba xam lan moo la indi ci kaw suuf nooy def ba am sa ngërëmal boroom ajjuma ji passé maa ngi leen doon wax ñaari extrémité yu ñuy dund ñaari mbir yu safaanoo yu ñuy dund suñu ndaw ñaa nga Cameroun ne dañuy sakku jukub dafe suñu yeneen ndaw ñi ngi Gambie représenté fa la nga xam ne mooy CEDEAO ngir défendre la nga xam ne mooy sécurité gox bi ngir défendre rawatina ñun Sénégal suñu àll bi ñuy toj di ci jël ay milliards di yóbbu di jaay bitim réew ca bantama suñu ndaw ñi nga xam ne ñoo sol takk der dem taxaw di jàmbaarloog ñoom semaine passée ñu jàppaleen ca ñu reyoon ca ñaar juróom-ñeenti réer ca juróom-ñeenti yooyu ñu réer armée ba mujj na ca gis ñaar yoo xam ne ñoom it dañ leen a rey ba tey booba ba léegi armée sénégalaise nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñi ngi sillonné àllu Casamance yëpp ngir gis ña ca des en ce même temps tout le peuple jóg pour lan ngiree dañoo am qualification coupe d'Afrique mbokk lii lu contradiction la lu contradictoire la loo xam ne ni xel mënu ko nangu suñuy doom rey nañu leen suñuy doom ñi ngi ci nekk loo xam ne xamuñu lu mën a doon quelque nit ñuy daw di topp ab bal yëkkati tout un peuple mbokk loolu jaaduwul delloo si leen seeni xel yàlla dañoo bind indi ñu ci kaw suuf adduna bii dafa war a nekk benn moyen bu ñu war a jaar ngir jege suñu boroom lépp lu ci nit di wuti jubluwaayam mooy ne nekk ci yow benn yoon ngir nga am ngërëmal yàlla yow ndaw mi nekk dans les études fexeel ba bu la kenn raw na nga yéene bokk ci scientifique yi gën a rëy ci adduna bi na nga yéene doon koo xam ne da ngay jëriñ sa peuple na doon ci médecine la ci architecture la ci informatique la ci lépp lu mën a doon loo mën a jàng-jàngal yow borom alal loo mën a dajale ci alal dajaleel yéen borom alal yi yéen a mën a tabax jumaa yi yéen a mën a dekkal daara yi yéen a mën a indi projet islamique yi waaye mbokk loolu na nekk des moyens bañ a nekk des objectifs xam leen ne seen jubluwaay bi gën a rëy mooy jaamu yàlla lépp loo xamee ne ni mi ngi lay sagganloo jaamu yàlla di la fàttaloo jaamu yàlla ngal la waaye yow mag yow ndawal julit moytu ko waxumaa nag yow mi nga xam ne mag nga boo xam ne da ngaa bi jaaw et yéen mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na lu ngeen mën a am ci àdduna lu tuuti la bànneex la bu tuuti la wa ma utiitum min cheyin fa mata fa mataahu lxayaati dunia wa zinatuha wa ma inda allahi xayrun wa abqa afala taqiluun loo mën a dajalee dajaleel dix milliards dajaleel pouvoir lan nga ciy génne juróom-ñaari mètre percal dem ñu gasal la loo xam ne nii daante que cinquante centimètres lay doon sur deux mètres ñu jël gas suuf dugal la ca jeex na ndax lii jar na jaay sa ngor ndax lii jar na jël sa temps yépp jagleel ko ko laa mbokk julit borom xel du def loolee looloo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daanañu ñaax fu ñu mën a toll ngëree ngalla waaye ñu bàyyi xel loolu ca mooy ànd naa ki sahabaam ñu dem ba ci romb benn ñag yonent bi seen benn bëy bu ndaw bu ñu fa sànni ba mu nëb yonent bi ñëw yëkkati ko ak yatam ne sahaaba yi kuy ñëw ma jaay koy lii waaye lu yomb laa koy jaayee ku indi dërëm rek ma jaay ko sahaaba yi la ko ak yum yàlla yónni kii luñ koy doy kii kay waa këram dañ ko sànni mu ne wallahi maa ngi leen di seedaloo ne adduna moo gën a woyof ci yàlla ci lii nga xam ne kenn ci yéen bëgg ko mbokk yàlla adduna mi ngi ko tasaare ci ay noonam ba adduna sosoo ba tey ñi ci ëppale lu dul cas exceptionnel li ci ëppale mooy yéeféer yi su ko defee ndawal jullit moytul adduna doon na loo xam ne borom xel yu jëkk ya dañ koo considéré woon ak dex ñu xam ne lan moo cay mën a muccale mooy gaalu def lu baax ak ngëm yàlla comme yonent yàlla nuux ba ko yàlla joxe gaal doomam ja fettirlu na ko bàyyi damay dem ca montagne bi ngir mucc mu ne ko laa asima al yawma min amrillahi illa man rahima kenn mënul mucc lu dul ko yàlla yërëm ca moo ko yéeg ci kaw gaal gi naka noonu itamit yow jullit xamal ne sa muccukaay mënul nekk lu dul sa ngëm sell nga jëf lu baax amma adduna kenn du ko jeexal adduna bànneex boo ci am bu ëllëgee mu xañ la bu la reetaanloo tey bu ëllëgee mu jooyloo la lu mu yàgg-yàgg da ngay mujj a teqalikoo ak moom jabar yi da ngeen di teqalikoo doom yi da ngeen di teqalikoo compte bancaire da ngeen di teqalikoo lay des ak yow mooy sa ngëm ak sa jëf bu baaxee baax na bu bonee bon na et yéen ndaw ñi ragal leen yàlla yéen mag ñi yéen dama leen a jëllale nañu bokk ragal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne law kaanat dunya taadulu inda allahi janaha bauda ma saqa kafiran minha sharbatama su doon te nee laafu yoo yàlla dafa xamoon ne adduna yépp méngoo na ak laafu yoo ab yéefér du fi am kaas bu muy naan waaye mbokk yàlla daa xam ne lii nattu la day jeex la nga xame ni nii mooy sax mooy sax ay yow ndawal julit bul jàpp ne kii lay romb ak katkaatam raw na la bul jàpp ne kay nekk ca immeuble am les milliardaires raw nañu la laa wallahi xamal ne ki la raw mooy ki la raw ci jaamu yàlla ki la raw mooy ki la raw ci daraja yi nekk ci ajjana jëkkantee leen ñeel ajjana misaal bu ne yàlla jox nañu ko ci misaal bu ne yonent bi jox nañ ko ca bokk na ci misaal bu ñu ci yonent bi alei salatu wasalaam wax nee na ba àdduna sosoo ba tey mboolem li fi nekk ci xéewal buñ ko doon méngale ak aljanna day mel ne yow mi demoon géej jël sa baaraam samp ci ndoxum géej li taq sa baaraam mooy mboolem mi xéewalu àdduna géej gi nag mooy aljanna mbokk ndax lii mënees na koo méngale laakin mënu koo méngale kon moytu leen ñàkk loolu bu leen kër kër yi jëm ci àdduna fàtte seen diine mu am nag ñu gën a bon ca ña ko jiite mooy ay sëriñ soo xam ne ñoom seen diine la ñuy jaay ngir jënd àdduna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un góorgóorlu leen seen kemtaleel kattan ku nekk ci ñun bàyyi xel suñu borom yàlla day subhanahu wa taala heure boo jógee sàkku ngërëmam yàlla dana la may xol bu dal fegal la lépp looy ragal waaye heure boo jógee ne yaa ngi wuti àddunaay yaa ngi wuti pexeey loo koy wute mooy sa merum boroom wallahi da nga sonn coono bu dul jeex ca la ngay sakku doo ko am xol bu neex ba ngay am doo ko am heure boo dajeeg sa borom yàlla sa borom yàlla boole la ci ña nga xam ne ni da leen di mbugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla proposé na ko soo bëggee nga nekk buur bu jiite àdduna yépp wala boog nga nekk jaam buy sant yonent bi alayhi salaam tànn nekk jaam buy sant moo gënoon ci koy dox ci kaw suuf moom mooy gënoon ëppoon xel ci ñu yàlla bind waaye daa préféré woon lépp loo xam ne temps la lépp loo xam ne xalaatam la ak kattanam la mu jagleel ko ngërëmal boroomam looloo tax ba këram nga nekkul woon kër gu neex bal ba soxna yi ñëwee ne dañoo bëgg kër gi ñu def ko change yi dundin bi suñu borom dafa wàcc ay aaya ne immaa ngeen dund ak sama yonent ci nii nga xam ne noonu lay dundee wala ngeen ñëw ñu dajale alal jox leen ngeen dem loolu lépp mbokk dafa bëggoon nekk exemple suprême xam ne kenn koo xamee ne nii war nga koo ñee xam nga ne dabul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent boobee nga xam ne ku nekk war naa bëgg a jaar ci ay tànkam ay tànkam de moom sallallahu alayhi wa sallam moo doon adduna da daan jihaad guddi ak bëccëg da daan kër këri guddi ak bëccëg waaye lu mu ca masaan am mu néew ak a bari da ko daan jagleel boromam subhanahu wa taala amul lenn loo xam ne da ko daan def pour àdduna ngal la waaye loolu la ñu suñu borom yàlla woo mu daa di woote it ndaw ñam nekkaloon te woon na ca loxo abdullah ibnu omar ne ko ay sama doom kun fi dunya ka annaka garibun aw abiri sabil ay sama doom melal ci àdduna yow da ngaa nekk un immigré koo fi ñëw xalaat kañ lay delluwaat wala koo xam ne dafa jaar ci yoon di jàll ba mu koy wax ibnu omar su amee ay 15 ans peut-être ca la yem loolu muy wane ne yow ndawal julit su objectif bi gën a rëy a rëy mooy naka laa di yegge ca daraja yee gën a kawe ci aljanna fan laa koy jaare ndax mooy dem dëddu toog ca àll ba wala toog ca jàkka ja laa wallahi xoolal lépp lu la mën a may àdduna demal jublu ci loolu waaye yéene ba nga ca yéene mooy naka laa ci amee loo xam ne danaa ca sàkku ngërëmal yàlla lépp loo xam ne pakk la bu dox suma diggante ma xam ne lii ngërëmal yàlla nekku ca wallahi bu dee ministre soxluwuma président soxluwuma milliard soxluwuma ndax man lépp lu may sàkku ngërëmal yàlla laa ci sàkku ndax dama fee jaar rek maa ngi dem lii mbokk mooy la nga xam ne nii képp koo xam ne nii gànnaa yoo na ko dey yàlla dana ko may dund gu dal dund gu tey heure bu ñu waxee dund at dëddu àdduna gars yi jàpp ne ah xanaa kon daal yow da ngay ñii dañoo dañoo mettil seen dund ñii waaye dañoo jafeel seenug dund laa wallahi ñàkk a xam bokk na lu borom xam-xam yi jëkkee doon wax law yaalamu abnaul muluki maa nahnu fii mi fiihi min lazza la qaatuluuna ñii di doomi buur yi bu ñu xamoon ñun ñi comprendre àdduna comprendre suñu diine bànneexu xol bi ñu nekk bu ñu ko xamoon daan takk armée xeex ak ñun ngir nangu loolu déedéet mbokk julit ki dàq dund ci kaw suuf mooy julit bi wéetal boroomam xam boroomam xam lan mooy degré àdduna lan mooy degré aljanna kii moo dàq dund ci kaw suuf suñu borom yàlla nee na man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fa la nuxiyannahu xayatan tayiba képp ko gëm yàlla góor ak jigéen ca da ngaa doon ko gëm danaa la dundal dund goo xam ne dund ko tey la waaye koo xam ne xamoo loolu dundoo loolu naam ay milliards am mën na bari mën na nekk président mën na am lu nekk waaye suñu borom mu ne dana ko amal xayatan dayiqa dana am la nga xam ne mooy dund gu xarat dund gu gu xat goo xam ne ci àdduna la avant la nga xam ne mooy àllaaxira la ñuy jeexale mbokk suñu borom yàlla moo ñu woo woowul yéeféer ya ñun julit ñi la woo ay yéen julit ñi ragal leen yàlla ku nekk ci ñun na xalaat lan lay fekki ëllëg bis bu dajee ak boroomam te xam leen ne lépp lu ngeen nekk yàlla subhanahu wa taala xam nañ ko eewaay yéen julit ñi bu leen mel ni ñi ngeen nekkal ci kaw suuf ñu fàtte seen boroom ñooñu de yàlla subhanahu wa taala fàtte ne leen ñooñu ñooñu génn topp eewaay yéen julit ñi xam leen ne laa yastawi ashabu naar wa ashabul janna yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a dem aljanna bu leen jeex bu leen nekk di nuru nurulu di bëgg a yem ak ñi nga xam ne sawara lañ jëm loolee kon seen programme warul nekk benn seen jubluwaay wurul nekk benn ki nga xam ne daa teg yàlla ci kanamam teg aljanna ci kanamam mënul yem ak koo xam ne fàtte na yàlla jël àdduna teg ko ci kanamam yal na yàlla may ñu ngërëmam àdduna may ñu ngërëmam alaaxira yal na yàlla màggal alaaxira ci suñu xol yal na yàlla woyefal àdduna ci suñu xol yàlla bu ñu yàlla boole ci ñi gën la àdduna ci kaw alaaxira yàlla ñu yàlla boole ci ñi gën a alaaxira ci kaw aljanna ci kaw kaw àdduna allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaaxirati xasana wa qina azaba annar rabbana la tuzig qulubana baada iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab subhana rabbika rabbil العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين